yéen ñu doon wër xibaar yi wóor te seen télévision 5 TV Sénégal moo la ñuy jagleel site bi nga xam ne mooy www sénégal 5 point com site bi am na application mobile mën nga ko télécharger nu la neexee te doo fay dara ci Play Store wala ci iOS. képp ku am événement pour couverture mën nga ñëwoo si 77 864 86 84 77 864 86. 84 wala boo amee article boo xam ne nii da ko bëgg a séddoog ñun man nga ñu bindal ci rédaction sénégal 5 arobase gmail point com rédaction sénégal 5 arobase gmail point com képp ku bëgg nekk partenaire ñu ngi lay souhaiter bienvenue ak di lay wax aussi mën nga ñëw woo si suñu numéro service commercial bii 77 864 86 84 77 864 86 84 si Koubouge information demal senegal5.com Si com ku bëgg vidéo ak théâtre yu vidéo yu ci demal 5 TV Sénégal pour fàtte mukk nak abonné ci bi nga xamné suñu 5 TV Sénégal ngi lu extraordinaire lu yem Sensit. site www.senegal5.com lu de fay une télévision 5 TV Sénégal Daoulen leen n'y découvrir lan moo xew 5 TV Sénégal daw leen n'y a un lu xew ci 3W sénégal 5 tey eh, tànn. la la la la la la la ndogu. man maa nga fi ñëw yaa ngi door a toogu yaa ngi door a toogu maa. tax xamoo affaire bi nu mu demee. tag ah. sa mbaaba. boo toogee maa fii. du fanaan ci néegu tey. ci du soleil fanaan. xoola. bi tey dama lay wax dëgg la de. xaloo xanaa ne c'est xamoo. gerte du ko lebal. ndax mu la ko ci néeg bi. oh du ngeen woon

Papa ji xaaral xaaral ma ñëw. xaaral xaaral xaaral ma ñëw. booy yooyu tam nag. xaaral xaaral. ça va. yow sa baat bi am na lu ma jox. ñoom maa ngi ñuy ndogoo ba ñoom moom ngay sànq. fii sama bas la. xamee noonu. yow sa baat bi ngay xamee naa ñan. waa. Eh, ñaan ko yow baax na na nga def. am ah, ni maa wala maa. baax na baax na baax na jërëjëf. ah oui tëj naa kër gi. waaw oh. naa kër gi am. Ah. ma ne sarax bi baax na xanaa du da ngay sarax rek. waaw dama lay sarax. gis nga sarax moom bu ci ay dóor la dee xaj moom. nañ ko bàyyi rek baax na garaaw. non man man man man a ma la woon teel a ma la woon lool. ah ba mënoon nga bàyyi nga wax lool ay ay yow yow yow looy def fii ba pare. fan fi ngeen fi ñu fi la ñuy woolee. ah fi ngeen di woolee. waaw su ma ko xamoon kay du ma fi ñëw. xamoo ko. xaw ni fi ngeen di woolee. fi la ñuy comme xam naa loolu nag. waaw am am am am baax na jërëjëf. non non am. ma ni baax na de. eh eh di nga jël téye lii laa wax. booy xanaa du salax rek ak jël. baax na jërëjëf man maay nangu yow yaa may jox maay nangu waaye jërëjëf. xaar eh eh, eh eh am soxna ma sa fetaaw foofu. fetaaw. xanaa du sarax rek. eh Iris la ma seet fa daaw ah indi Iris am. booy yow tamit bàyyi sa yii ngay def. eh rek. te jox ma ko béy jëli. sa yii ngay def. Ah, yii ngay def moo tax ma daw. teel waaw teel teel am am am. waaw daw naa nga dëgg bopp teel. si sarax rek la. waaw waaw si sarax la. yàlla ah. yàlla pomp. maa maa waaw. demal demal météo demal. ay ñàkk soxal nga ne papa Massa. day day day moom fu kër gi fii ci ginnaaw. dafa ñëw foofu naan donc ma ci ma yàlla ma jox ko cent franc mu nekk nag yaa ngi dem waaye mu bàyyi Sénat noo dee indi ma sama xaalis mu ne ma waaw ma toog xaar bàyyi Sénat noddu ñu ñu ñu lay laa waa jumaa lay leen julli avance ñibbi Sénat ñibbi ñëpp ba ban ca jàkk mu ni ko woon gis waaye bi ma ko gisee. ma jàpp ko lim war ko ay yàlla war a am naka yow man gisuma yàlla yow nga ne man yow ay yàlla ba ma may. waaw man sama xaay lekku de. boobu man kay li nga doon waay. kii koy tàng tàngal la ma añ waay. añ amu fi. xam naa ko da ngaa woon. te te te toog ma añ mi xoolal tey nag naka ko njëkk ah. añ amu fi dugg amu fi yow xamoo fa la si ma xaw dëkk ma dem nangu sama mango bi ah. yow xaw ko bàyyi ma bu hmm. nu mu des amul foofa yoroo fukki dara mais ma jël mburu nga demal ma ci ñeex. sama xol fu ñëw tey di yàlla doon ma ko sarax maa nga. boo joxaleen ma ko foofu benn mbuusi bisaab waay <laughs> waay déet waay.